vif du sujet mooy qui euh, euh, malik Ngom façon bi mm. xaw nga ko wax sax façon bi ñu nommé malik Ngom man mm. je me rappelle que depuis bima xamé lamb bu tay musuma ministre nommé nonu une un président du CNG parce que ministre en mm. prérogative pour jël kum ku ko neex mu dank ko CNG mais euh, concertation bi baxna mais façon tanef bi mo xam une na structure bu dem bu nek dem tànn trois personnes ci bi trois personnes qui a jusqu'au vote au niveau du ministère. on n'est pas en fédération on est dans un comité de gestion dans une comité de mm. gestion est-ce que façon bien, façon non, ndax euh, rafetlu Raphaël ou bien non comme je dis comité de mm. gestion qu'il faut gi mm-hmm. comité de gestion il faut mooy yëg comité ne dénk naa ko mhm. bu dee comité gestion nag dañ koy voté association yi dem voté da nga leen di bàyyi mhm. mu ne association am restitué nañ ñëw temps temps jël délégué ko ministère mu ñuy ko te buñ voté ci saa si résultat mën na génn mais voté dem toog di hésité à gauche droite di wax fi à droite loolu gis nga façonnement yooyu yëpp moo indi aérement yi di am te gis nga coow day continuer ba mhm. mandat Malick jeex parce que élection bi ñu ko falee mënoon na gën a rafet il prend elle prend ses responsabilités man gis nga teel nom mu nommé waat Bira nommé Malick nommé keneen nommé nommé on dirait que le monde de la la lutte va continuer à demeurer mais côté boobu moom vraiment ñi mu ko nommé moom nomination bi te coow day continuer ci nomination le monde de la ne bu ñu àndul ak ci nomination Malick mhm. ils vont dire du n'importe quoi ñoo ne itam pour sañoon Bira moo nekk te Bira mhm. itam ils vont dire du n'importe quoi donc am na ne comme Bira doyal nañ ci mhm. ne leen bëgg naa ñoom ñoo toog par ay ay ay ay ñu ne ko boy dañu la bëgg proposer mhm. xam nga buñ la waxé dañ la bëgg proposer tay tay yow tam do do do doo ngaaka. Mhm. do wax ni wi ni non. comme comme le disait notre chef président. Mhm. da ngay tok déglu leen. suñu demee nak ba nga xam affaire yi sës na. te tu as de bons conseils tout le monde l'a conseillé que boy allez-y. tu peux le faire. tu es jeune tu peux le faire et le pays doit être doit marcher par des jeunes. parce que mënuñu fi nek itam dëkk bi. ay retraités rek dinu diriger lamb depuis Alioune Sarr ba léegi ay retraités rek koy diriger. pourquoi pas ñu jox jeunes yi seen biir ngeen ngeen diriger dëkk bi neex. ñamante seen biir. Mhm. ñu xool jeune bu ak jeune bu mënul te y a des compétences ici. mais bu dee yow dem jàngale ji ba sa affaire jeex nga retraité ñëw dem <laughs> jusqu'à présent ay retraités nekk seen ay retraités nan bàyyi xale yi ñu liggéey. Mhm. parce que liggéey doo doon jàng ba am diplôme. nga toog ñaa non da ngay xaar kii li kërëb kërëb CNG bu am na ay retraité yoo xam ne ay booyee ngi fi am ay diplôme yoo xam ne poste yu ñu nañ ko gérer c'est moo tax defuñu ko lu tax ministre di nommé ay mm-hmm. diplôme am nañ xam-xam te mm-hmm. booy seen booy mën nañ waxante dëgg Malick tey jii bu fa defee lu war de booy bu ndaw moo ne ko wax nii fen mm-hmm. parce que xale la comme ñoom affaire bi jàll mais Bira Sène bu defee loo xam ne man mën a xaw a amee joxe cëru kilifa non xaw naa mais entre Malick ak Boy mhm. ñoo bokk diplôme ñoo bokkandoo fi nu génn ñoo bokk hiérarchie ñoo bokkandoo grade ñoo bokkandoo dañuy waxante dëgg mu mhm. jeex mais bu ñuy bàyyi tout temps ay ay retraité di fa nekk mhm. dëgg bi ku retraité nga dem toog sa dem jàkka ja ñeneen bàyyi booy ju liggéey voilà man loolu laa demain. Ah. man mais pourquoi pourquoi le choix de Malik pour tout le monde parce que pour littéralement en activité ñu ne Malick euh, les sages nous ne Malik. les ménagers nous ne hmm. Malik. les promoteurs nous ne Malik. même les hmm. les les associations de la lutte simple sax les amateurs et les promoteurs de la lutte simple nous sommes Malick pourquoi le choix de Malik pour hmm. tout le monde. Wa, xam nga nag man Malik man Malick moom wax ci moom daf ma daf parce que man Malick Dakar la mu fekk. Malick bu ñu jógee Kaolack ñëw man Dakar la mu Malik. temps yooyu Mbaye Diouf moo nekkoon Dakar. Mhm, mhm. géré woon club bu Dakar. c'est vrai temps yooyu dañuy dénkaane rek mais Malick bu mu ñëwee ak ñun fekk sunu groupe boobu itam ñu jóge jóge woon formation def grade régional. Mhm. fekk si woon gars yi Adrien Senghor commencement métti woon na parce que lafa doon am. ñun bi ñu ñëwee lu bëri dafa commencé changé. gars yi ils n'ont pas compris ci la commencé encore ku ci ba ñun ci sunu année yooyu lan am ay arbitre yu ñu parce que xam nga comme yu fi doon temps donc yooyu Mali bi def organiser waat ba ne il faut ñu ut un secrétariat dem nañ ba ci bay bëggul woon loolu sax bay bëggul woon ay secrétaire yooyu parce que comme niveau d'étude dam itam fort woon te mm-hmm. dans la vie toute xam ne par rapport rapport ci leen jël ne léegi comme Dakar mm-hmm. waratul nekk fii am am CCA warul nekk mhm. nan jël lépp def ko benn ci la ñu jëlee nag rattaché wuñu ci mhm. arbitre yu mag yi fi nekkoon te ñooñu tam presque ñun bi ñu ñëwee presque ñëpp dañ dem retraite ah ñun dañ dem retraite mhm. après ñu nekk fa ak ñi fa desoon ñu fa ba ko ñëw sa AGT jeexee ñu wekki la ñëw formation di ñëw arbitre bu jógee dans les régions itam ñu affecté la Dakar soo mën a intégré CRA Dakar parce que tu tu tu vis à Dakar nga ñëw par rapport ay réunion ñuy évaluer di waxtaan Malick c'est une personne boo xam ne euh, euh, administrativement jàngalekat la directeur d'école la responsable la mhm. mais c'est un amateur wala un gars qui a le sang de la lutte daf ko bëgg da koy dund mhm. da koy waxtaane man maa je le vois des fois mu dem comme ay mu dem Gambie seetaani làmb man xam nga ko ma yërëm ci maali ci vium jabaram Mhm. franchement parlant est-ce que sa jabar muy conseiller sa vie conjugale correctement dimanche parce que maa dafa bëgg lamb dem lamb Joal <laughs> jóge dem fële kërëb kërëb loolu muy jël xaalisam di ko ci def ku bëgg lamb rek mooy def noonu et puis tam saa fa demee des en tant que secrétaire sax euh, CRA yi foofu dañ jël xaalis bu ko jox moom il prendra jamais cet argent là parce que ñëwu fa pour loolu mhm. donc lépp loo xam ne laaj na pour arbitrage mën a avancer. il mhm. a fait pour mu avancer nit la koo xam ne daal lamb am na lu mu ko jaral am na fu mu ko tegoon. macha allah man je vois que ne cet amour là wala cette honnêteté envers les autres malgré mhm. nag nit ku amul defo amul. loolu la ko yàlla fayee xol boobu xol boobu muy dund. Mhm. moom la ko yàlla ba nit ñëpp bu loo wax rek ñu ne. Malick Malick Malick yàlla xam na léegi lan ngeen di xaar ci Malick en tant que arbitre lan ngeen non dul Malick dul xaar ci moom dara xam na xam na xam na xam na lu mu ñu xam na lu mu lu mu ñu war a mm-hmm. booy man je vous dis gis nga euh, euh, làmb. oui ku ci ku ci dundul keneen ku ne ku ne arbitre dund ci. Mm-hmm. arbitre amuñu daara daara daara ja daara ca arbitre ba pare yow boo boo pare yàgg yàgg yàgg yàgg amateurs ànd wala nga jël taxi wala nga jël super ak ñoom wala nga bokk ñoom càkk ay càkk càkk affaire yooyu. arbitre mm-hmm. amuñu dara de. ñi ci am as tuuti lii mooy lépp ñi nga xam ne dañuy jàngale wala nekk ci hiérarchie boo xam ne bu baax lañ. fin du mois mais bu dee lamb rek nga yaakaar defe ne arbitre arbitrage fayul comme li ñuy fay mbëri mbéy bu ñuy fay cent mille sax moo tane arbitre moo tane arbitre bu am xaalis ah je vois pas ça en tout cas il faut que Malick xam moom mhm. xamoon na parce que xeex boobu ba ci biraan yi ci wax jooj dañ ci nekk bu yàlla dogalee nag un parmi nous mhm. un parmi nous mhm. mu nekk mu nekkoon arbitre te yàlla def mu nekk président CNG defe naa képp ku nuy wala valoriser arbitre arbitre yi ci la war bo bokk xoolaat seen situation xoolaat lan lañ leen war a mën a organiser ba yooyu mais itam que itam arbitrage dafa nekk lu sensible loo xam ne su làmb defaroo arbitrage mën na ko defar bu yàqoo itam mën na ko yàq. mais au cas échéant li ngeen xaar noonu ci moom su ngeen ko gisul euh, ban réaction. moo leen war envers lui. ah <laughs> loolu loolu bu leen ko gisul lool loolu loolu. ou bien nga teg ko dégg loolu bu leen ko gisul. non dinañ ko gis bu leen ko gisul moom boobu ma ne mën la tontu ci question boobu mais dinañ ko gis de <laughs> gëm naa ne Malick fera quelque chose dans son magistère au niveau de l'arbitrage ah, lu muy lu mu lu mu projet bu mu sam mhm. arbitre yi nañ ci gis génn seen parce que amoon nañ ay projets yoo xam ne doon na ko proposé président yi fi pour mhm. les arbitres mais dañ doon siisu di bañ projet boobu yow nag en tant que général mhm. yoo xam ne yow yaay bind suñuy projet yaa xam suñuy projet ba tey ji ma avant suñu passation de service ak mom mom mom xamna xamna xamna na xam na li xew ba légui ñun defagu ñu passation au niveau au niveau CNG kii CCA bi organisé parce que Malik hmm. postam boobu il faut ñu xoolaat ko CCA il faut ñu réer réorganiser ko hmm. franchement parler donc du coup loolu noonu la démé dal man oh. en tout cas mom xamna hmm. ñun xamnañ yalla xamna te gëwu mu ne dinañu dinañu tànxam la macha allah waaw te mom tam il est il est il est ouvert il est ouvert ah. dafa la neex a waxtaanal quoi. c'est vrai su ko yàlla mayee nga woo téléphone mu am jot mu war a waxtaan rek mu mm-hmm. amul problème boobu. Mm-hmm. am na am na quelques réformes yu fi jot jot ci jamono euh, jamono euh, Bira Sène fekk na sax presque maanaam jeex mais def na fa ay quelques réformes ndax réforme bi yéen arbitre gis ngeen ci seen bopp. dama ñun gisuñu daal arbitre bi arbitre yi ah, dama ne la. Mm-hmm. ba ñëwee ñu nax. Mm. dañ ñu nax xam nga ñun presque mën naa ne ci Alioune Sarr na ma a baal. peut-être yàlla problème am bu gënee am problème mhm. arbitre yi dañ cee bokk bu gënee am problème ba yàlla def mu jóge fi mhm. arbitre dañ cee bokk bira bu mu ñëwee recevoir nañ waxtaan nañ li ñuy proposé woon du mhm. dara loo xam ne teg nañ ci benn pas boo xam ne mën nañu jëriñ amul benn amul benn amul benn avance ñun gisuñu ci suñu bopp bopp gisuñu ci suñu bopp suñ ci gisoon suñu bopp danañ togg wax suñu bopp am avance tourna ñun ñëw xëccoog moom après am na un certain monsieur Ndiaye ki nekkoon trésorier CNG te defe mhm. naa moo fa nekkaat ba léegi ni waaju waaju waaju baax ah waaju waaju nangoo dégg itam mhm. te dégg fu mu fekk fa la koy baay xaw ma nu mu tudd nag Ndiaye la sant daal ma Ndiaye ni ñoom waaw c'est le trésorier du CNG xaw ma nu mu tudd xaw ma nan Ndiaye la tudd daal man damay fàtte tur bi quoi mhm. mais waaju waaju waajoo itam sunu suñu revendication loo wax boo argumenté ba teg mo ne sa waay arbitre yi leen wax euh, am na de yàlla xam na ko ci ci ci dëggu rek la koy teg nag c'est vrai léegi nag voilà yooyu moom Bira moom vraiment ñun gisuñu ah gisuñu suñu bop seen si moom ah. macha allah parce que amuñu benn avancée au niveau de ah, am na solo léegi pour terminer lan lan ngay conseil Malick loo koy ban conseil nga koy jox quoi. Malick daal yàlla na ko yàlla jàppale d' abord. amiin après que le monde de la yi nga xam ne ñun ñëpp koo yuuxu yow wax nga ko sànq si ne koo ne nii mu ne Malick mu ne Malick. Mhm. def benn say ñu jàppale parce que mission bi ñu ko jox dafa xaw sensible mhm, mhm. ay maga daa yor ki bi CNG un retraité ay retraité rek doon yor tey xale moo ko yor mhm. koo xam ne ñoo xam ne ñuy muy muy muy ñoo xam ne comme ñu jumaay rek mën na mën nañ ko jur donc ñoo ñëpp danañ jël def leen ay conseillers ñi nga xam ne ay dañ ko doon xalab ak wala bëggu ñu woon liggéey ak moom sax jël leen def leen ñi nga xam ne liggéey bi làmb la sport traditionnel la ku nekk am nga ci cër macha muy nangu di déglu bu dégloo nag xool li nga xam ne arrangé na ko ñu mu jël li ko arrangé wul du ma hmm. wax da ma koy tëkkale mais dama koy jël ranger quelque part te du ma la wax nu mu demee parce que itam du du du dof quoi naandite la. du dof naandite la. macha allah voilà di ko daal côté boobu daal na ubbil ñëpp yoonam. Hmm. malgré nag du yomb parce que man mii amoon naa accès ci moom te gëmatuma ne dinaa accès ci moom <laughs> te loolu métti méttiwu ma man méttiwu ma quoi parce que uh-huh. xam naa ne yàlla dogaloon na ne amoon nañ rapport mm-hmm. mais cër bi ko yàlla jox dama koy nangul xam ne temps am mayetu ko te dafa war a liggéey loo xam ne tey mm-hmm. sénégalais war nañ ci gis seen bopp c'est vrai su ko deful rek dinañ ne non kii ñu wax ci moom que ne ko te defar lamp yomb la ah. sport traditionnel la mm-hmm. des fois da ngay dugg ñu naan dagg yi na wàññi sanction yi kërëb kërëb <laughs> loolu yëpp nag ay mbir la yoo xam ne ñu organiser adduna moom bu amul réglement bu amul rek du baax te li wax yëpp ci règlement la ne voilà du coup mu ngi noonu wax ji yëpp yëpp yëpp mooy lu muy def rek te moom il est assez outillé nag pour

di kii comme mal ni mu doon mais changement am mooy nekk Dakar di suivre la simple mu am itam ay amateurs yoo xam ne ils sont passionnés. Mhm. parce que Dakar peut-être grenier la boo xam ne mën nañ fa def làmb mu am làmb ñu organiser mu dem mais nañ comprendre ante ay arbitre ay arbitre ay nit dong lañ. Mhm. arbitre da ngay te et puis ñun bokkuñu niveau bokkuñu itam tempérament bokkuñu itam ni ñuy arbitrer parce que arbitrage. nañu xool nit ki ni ko ni mu jikkoo wala ni ko xadar bi mu am wala li mu am waaye eh, teewul arbitrage yëpp ci règlement lañ ko def am na arbitre yu nooy na ma yàlla ba am na arbitre yu dëgër mhm. am na arbitre yu tàng am na arbitre yu sedd ainsi de suite loolu c'est dans la vie de tous les jours ñu mhm. comprendre ko doon tax xam ne buñ sañoon dinañ arbitré gala bu mu jeex problème du am coow du am loolu daal mooy suñu ambition te chaque fois loolu la muy lutte avec frappe lutte sans frappe parce que arbitre mbër boo léegi ci règlement rek mhm. te nga def ko sa teef bakken wala mu xamul ne lii rek dafay mel mën nga def benn chute boo xam ne da juum arbitre day juum. Mhm. mais ñoom du nangu arbitre juum te il faut que arbitre juum. deuxièmement les amateurs il faut ñuy nangu mhm. a gëstuwaat par rapport au règlement. te man loolu moom vraiment dama koy déplorer. du ñu xool règlement bi des fois ñu ne la ay tànk bu ñu mais pesé loolu c'est bien. Mhm. mbër day mbër day doo dem na fi bëri ay moins de soixante six dem na fi soixante de cent lay bëri. te pourtant noonu la rek.

lamb bu nu arbitré du am coow yàlla xam na ko. c'est vrai ñu bàyyi nekk itam surtout Adrien Senghor ñuy sànni ay ndoxok ay xeer ak. <laughs> di yuuxu di yuuxu les di yuuxu loolu amul quoi wala di saaga. des fois nit toog saaga la saaga boo xam ne. Mhm. yow dans ton cœur da nga ne xoolal bu dul woon làmb dul ma saaga quoi làmb moo tax ñu saaga saaga baaxul. c'est vrai nan leen gën a woddaat wax yi gën a itam jox ñu cër. suñu joxee cër rek amul problème bu ñu juumee sax. Mhm. certes xam nañ ne juum nañ wala ngeen baal ñu ci juum peut être mën nañ bañ a juum ngeen defal mais bu toogoon waxtaan mais mhm. amuñu chance boobu ñuy waxtaan ko def ko affaire tey lii nga def nii. Mhm. initiative bu rafet la. des fois toog nga gis benn arbitre ñu waxtaan am sotti xalaat au fait. am ñu comprendre woon ñu comprendre. man j'ai na ay lacunes yoo xam ne moom laay arbitré. des nit reproché wax ma ko ma jéem par rapport à ma def ci njàngat. su ma ñëwee mais bu fekkee ñun da ngay toog pare ñëw. buñ lay buñ lay rectifié saaga ne leen rectifié <laughs> sa xol day jeex et puis loolu te dafa xaw a bari tuuti tuuti quoi daal bu ñu ko mënee éviter mais yor yor yor naa sa sa benn yóbbante dama la koy wax fàtte woon naa ko naroon émission bi jeex na presque bon <laughs> certainement Samba dëkk Thioum yi bokk ci fan club bi Bignona TV nee na en général seen combat yëpp day jeexee par point <laughs> loolu kooku loo koy par point waa non xam nga làmb jeu simple dafa xaw a doy waar quoi. Mhm. parce que boo jëlee ñaari mbër nga leen arbitré. waay temps bi nekk cinq minutes. ñuy bëree bëri amul contact amul dara amul dara amul dara ba cinq minutes yu war a jeex te dans il faut qu'il y ait un vainqueur. un vainqueur c'est forcé. tu es obligé tu es obligé. Mhm. kenn ku def simulation d'attaque bu correct rek nga avertir ke rek. Mhm. parce que mbëri itam loolu ngay wax noonu mbëri ñoo ñuy exposé vers ça parce que doo bëgg doo bëgg leen avertir par bëriwuñu Mm-hmm. mais itam bu ñu bëriwul tu obligé nga di wax ak ñoom moo tax des fois ngay daan ñan bàyyi ñu ñu bëri mais mënuñu leen ñu bàyyi ñu bëri cinq minutes la. même lutte avec frappe deux yi mag yi deux fois dix minutes soo leen waxul bëri leen parce que arbitre bi moo war a animer combat bi wuñu ngay wax animé combat ñu ne eh leen bàyyi leen boo fa bàyyee muy xalaat il faut kenn attaqué ci attaqué nag mën na nekk ki naroon daanu def benn attaque bu baax après mu am point on sait point yi loolu moo koy indi mais du ñun ñooy bëgg point moom jaay te su tañoon chaque combat mais est ce que mbër bi bëri nañ pour chute am bëri wuñu léegi nag li ci des mooy la naree tëmbal mhm. yow tëmbal kenn kii nga xool kenn xam ne attaqué wu nga jox avertissement mhm. combat bu jeexee par avertissement loolu rek mooy waral loolu parce que bëgguñu léegi des am na da ngay toog réunion critique mun la jàppee da ngay sax bàyyi arbitrage da dem réunion dan lay jàpp naan la li combat bi waroon egg Ah, ah, mbër bi daal moo tax kii de surtout nag mbaay yu mag yi nga xam ne mooy plus de cent kilos yi foofu hmm. moom vraiment arbitre bu la fa yóbbu da ngay da nga naan non chetata mais bu dee booy moom dañuy bëri ba naaw mais hmm. muy mag yi da ngay toog ñuy léewtoo di raayante di xokk boobu da ngay jékki dem ba fin bi lay jékki kenn jékki def benn attaque kërëb kërëb affaire yooyu nga jël kee nga jox abita ñu yuuxu la ñun la yoo kooku def na effort lu bon bon xaar hmm. na ba temps bi jeex mu exploité contre peut-être il wala

su fekkee ne dafa dafa ci coobare bopp nag kooku war nañ ko avertir mais ki nga xam ne dañ ko pousse bu mu génn saako yi est ce que kooku war nañ ko jox avertissement waaw xam nga làmb li tafay simple pousse bi xam nga la mooy bu fekkee da nga jël benn cent vingt kilos bu ne ko benn quatre vingt kilos mm-hmm. quatre vingt kilos mën na ko jël man damay téye booy maîtriser ko moom lii ma pousse ko mu génn parce doole mooy bëri quoi moo tax catégorisation bi bi du nu mën a bëri man si suis obligé damay def calcul pour bañ booy bi nax ma daan ma. Mhm. léegi nag calcul am mooy bu mu xasee ba mu maîtriser su ma ko mënul daan dama koy jéem a pousser ndànk ci saako yi pour mu génn parce que dañ ne bu leen génn waruñu génn. Mhm. soo génnee tu es obligé que ngi def benn genre passivité mais nag bu la jekkoo ngay reculer reculer reculer man damay obligé tam jekku la pour pousser nga reculer sañu war war warul woon mën a nekk. mais nous sommes obligés de le faire parce que règlement moo bu ëppoon amee. Mhm. benn cent vingt benn caaga fay di bëreeg benn Séni Bargny Séni Bargny ak technique bu mu am caaga fay ak doole ji mu am caaga fay nag ñiib Séni Bargny Séni Bargny bëgg a jaar ci poxtaan dama koy téye pousse ko ndànk mu génn. parce que loolu boobu laa ci am moo tax ñu def catégorie de poids bu 3 millions amee 3 catégories. Mhm. moins de 3 millions ñu def ko dee ay mooy loolu rek mooy kii mooy indi ne lii bu buñ ko deful bu mu am ak yooyu texte bi daal bu changé nañ ko changé bu changé wul itam mënul sax mais dañ ne la sax des fois mbër di ngay gis ñaari mbër di puusante di puusante ba àndandoo génn yooyu dangay ngay xool lecture ngay def am na arbitre yu ciy juum am na ñu toujours juum mhm. mais des fois nga gis nag mbër ñu puus ko mu mu sonn mu génn parce que dama ko puus dafa sonn dafa génn mhm. mais am na ñoo xam ne dañuy dañ lay ndengeñ bloqué la yow foo yow doo bëri ba pare pousse yow moom yow yaa fute mhm. nit di ko ndengeñ bloqué ko foo xam ko pour mu bëri ba pousse ko mu mhm. si yoon yow moom lan la war a avertir yow mi ndengeñ pousse mu génn yow lan parce que yow yaa bëriwul mhm. xam ne mënatul bëri mais nag bu fekkee ne yow da nga denge teg ko si le côté nga teg ko si épaule bi. Mhm. téye ko maîtrise bu baax parce que bu mu génne dañ xam ne da ko jaay doole wan ne ko du ma sa morom. Mhm. génne ko loolu da ngay ki foo xam ne ci put la nga teg sa bopp ci putam waa ji mënul nooyi mënul téye sa ngeen mënul def benn effort. pour bëre yow yaa ko tere bëre koo tere bëre loolu mooy loolu mooy indi des fois ne kooku lañ war a invité des fois nag ñun suñu am na ñu ciy juum ci mhm. nga nengeeñ ñu joxoñ bi mais des fois amateur yi sax dañuy saaga ci loolu <laughs> te ndengeñ ci la bëri wax nañu boo defee ndengeñ da def ndengeñ pour def action mais boo defee ndengeñ te defoo action bëreetoo da nga bloqué waaj pour bañ bëri te yow bëreewu cela veut dire loolu mooy loolu mooy indi des fois incompréhension yi nga xam ne comme buñ ciy waxtaan tout le temps rek ay solution mën na am wala ay compréhension mën na am wala échange buñ ci doon échange ci règlement bi rek dañ dem mhm. bu ñëwee xam ne leen buñ <laughs> mais Tidiane lan moo tax VAR am ci bëre dóor te amul ci bëre simple. la VAR VAR lan moo tax mu am ci bëre dóor te ci bëre simple. non VAR gars yi dañoo gars yi dañoo ko imposer ba pare mënuñu ko eggali gis nga VAR. Mm-hmm. bëre am na bëre simple sax ndax VAR ku ku def recours loolu mooy VAR recours de. Ah, mais bëre simple bëre simple mooy man su ma soñoon non xam nga dañu dañ ko dañ ko dañ ko ko étudier rek man mën nañ ko gën a produire parce que mm-hmm. mbër suñ ko tegee loo xam ne du yoon balaa ñuy balaa muy def recours dañu war a xool loolu ndegam jar na recours wala jar recours ba pare mhm. ñu doog ñu doog bi di quoi man du ma ñëw ma xam ne lii ñu ma def dan ma ñàkk ñàkk dan ma ñàkkal dan ma ñàkkaloo ba pare fayeekuloo ma pour ma am gain de mhm. loolu war nañ ci war nañ ci mën a waxtaan ba mu solution par rapport à ça mhm. arbitre mën na juum itam par rapport benn interprétation ñu xool VAR bi ne ah arbitre baa juum ñu delloo waa ji la ma moom mais bañ ko yóbbuloo naan ko dangay fay pour def ak yooyu loolu mën na nekk mais nag VAR bi moom par rapport ak lii bi moo tax mais comme technologie dafa avancé. Mhm. par rapport ak ak ak nomination benn technicien boo xam ne il est chargé peut-être je pense au delà ci yooyu yooyu yëpp mën nañ dem ba par rapport ak mission bi ñu dénk Malick moo am ci ay avancé ñu gën a xoolaat de lutte simple bi bari na ay xaw ma li ñuy wax. TV TV yu fa nekk. TV mën nañ nekk ay VAR parce que itam ils vont on va travailler en étroite collaboration avec le CNG. Mhm. loolu ci Malick la dépendre wo leen. site yi nga xam ne ñëpp ngi yëngatu ci làmb sem waxtaan ak ñoom expliqué leen nan la bëgg ñu liggéey mais itam site yi nan bañ partial quoi nan mel ay arbitre mais site boo xam da ngay far su mbër bu demee lii ñu ne wan ma nga ne non du ma la wan wala boo bëggee wan wan loolu ça dire dafa am ay bagage yu nekk yoo xam itam lépp kenn mënu ko wax daal waaw mais site yi yoo xam ay presse mën naa ne sax est ce que mbër yi moomu ñu woo des fois da ngay da ngay wala benn bi su ñu la defu ñoom ñoo lay wax sax defu recours site bi moo lay wax defu recours bi waaw dafa war a neutre comme kii bi tant que mbër bi waxul ba table technique bi sollicité leen ñu ñëw ak table travail ñu mel ne ñoom itam ay arbitre ñoom itam ay technicien yoo xam ne so mais da ngay yemale mbër yëpp mais bu dee da ngay far lii ni mbër bu defee li nga ne deful lii yéen yéen yéen yéen supplier la table technique à ce que mu ñëw rapproché wu vers vous ngeen wan leen ne kii dafa juum hmm. lii moo amul li saa ba ceeb bi ne bi ñu xoolee image bi gëm nañu arbitre bi moo juum donc delloo nañ déy diw moo def lii diw moo def lii diw après loolu bi jarul sax recours jarul sax xaalis loolu nag waxtaan ak Malick ma xam ne ñëw na man sama xalaat rek laa wax nag waxuma mun na nekk wala mun na mais sama xalaat rek laa wax mun nañ ci waxtaan ak Malick mhm. mu nekk ay réforme yoo xam ne war na ko war nañ ko gën a mën a defaraat ci làmb daal comme nii gars yi di wax naan làmb bu mag rek mooy am baar làmb yëpp mën na gaan biy ñëw logiciel bi mu indi moom bu amul écran sax nan teg ko ay caméra yoo xam ne bu nu paree bu hmm. amee litige mën nañ dem à gauche à droite ci kanam ci ginnaaw technicien moom moon dafa ay léegi écran yi écran yi métteetul quoi hmm, hmm, métteetul téléphone am na téléphone yu baax am na appareil yu ndaw yu baax ainsi de suite yooyu yëpp mën na mën na mën na améliorer techniquement la va pour que pour que pour que ñu defaraat mais mais recours yi gars yi bëri dañuy ne Euh, en mm. général yow da ngay déposer recours gaa wàññil la ko bu léegi wàññi nañ la mais est-ce que boo amee mm. gént ko war waruñu la li nga li nga moom nga jot a dugal sa 15 waaw lool la lool ci lool laa la wax ne la recours boo defee recours mm. mu lenn la yow yaa am dëgg soo gañee dañ la war a delloo sa xaalis nga xam ne kon ñooy ñi ñi la attané appel ñoo jub mm-hmm. si yoon mooy yooyu comme yooyu waxtaan la rek mm-hmm. te je je sais ne Malick bu ñëwee ci li muy waxtaan lu gën luy defar la mm-hmm. gars yi duñ defar ba pare moom mu ne moom itam du defar gars yi bu ñu defaree moom itam il faut mu ñëw mu ut lu mu defar si nag ci base yi muy defar yooyu yëpp ay ay ay ay ay ay suggestion yooyu la que tout un chacun doit prendre ñu indi ko jox ko fekk ko bu ñu ko tegee tam moom il n'est pas fou ah parce que lamb itam lu nu mën a wàññi sanction moo gën lu nu mën a wàññi sanction pécuniaire moo gën mm-hmm. mais nag sanction pécuniaire day am sanction dafa war am mais lu ñu ko mën a wàññi moo gën mais nag bëri boo leen bàyyee lépp di def lépp dëkk bi day toj de loolu moom il faut pas attendre à Malick que a sanction sanction day am par force mais nag sanction ñu ko mën a allégé mhm. ñu ko gën a mën a defaree gën a gën a mën a woddee moo gën daal te mhm. yi ñuy wax nii ñi ñuy waxtaane nii ay idée la waxuma dina am waxuma du am mais au niveau de la LISSEMP am nañ une très belle organisation mhm. xam ne bu ñu toogee ak ñoom link bi ñu am ak Malick te je sais que ne Malick link bu mu am ak lutte simple man gëmatuma dinañ am secrétaire général bu mel noonu gëmatuma franchement parler euh, c'est dommage euh, franchement Euh, émission bi donc kon dañ koy couper non rek suñu mbokk lañu ñu nekkaloon muy euh, Tidiane Faye nekk arbitre national euh, franchement dëkk yarax

la donne passer les témoins Le bira donne les témoins à Malik Ngom Tay, aussi le vendredi 8 euh, novembre 2024 ministre bi nous ko installé au niveau de la au niveau du ministère nous donne installé euh, officiellement euh, pour président CNG donc kon tey la Malik Tok officiellement président CNG de lutte nous le 31 octobre bira jox ko